maaleykum am internetu télé Sénégal yi ñu safoo dañu seetaan nuyu nañ bu baax a baax di leen ziar di leen jaajëfal te di leen jox seen wàccuwaay tey nag dama toog ak sama jumeau yi macha allah nee naa leen da ngeen xew ci jamono te yàlla bu ngeen xewee bañ xewee ba tey nag macha allah wii rek ngay dégg waaye doo dégg non jumeau jumeau afiya ah, xàmmee ma leen nag damay <laughs> su ko defee ma bàyyi leen ñu daal di nuyoo aja jimo waa salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di am kontaan ak mbégte bàjjen yow mi dalal ñu tey nga nekk nit ku baax nit ku oyof di ziar suñuy ñaari waajur nu ñu mel ñoom la waaw di sant suñu sëriñ bu wér sëñ Afiya Mbàkke mu sëñ Fallu yal ko yàlla yërëm taxaree ko àjjana sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg ak yàlla bàyyil ko fi bàyyi ko fi may ko gudd fan ak wér mu sax fi dàq reetaan ji di gën a neex. macha allah Ousseynou wala Assane. waaw mi bàjjan internet. Ousseynou wala Assane. <laughs> Zimo Afia na ci Zimo yi nag. dañuy bañ a séparer seen tur ah. déedéet non non. ah gars yi chaque jour ñu ne mais ñaani ñu nañ nan lañ tudd. ñu ñëw si Zimo Afia lañ tudd nañ ay Zimo. Zimo waaw. waaw amul Ousseynou amul Assane Zimo rek. Zimo rek waaw mais waa asalaamaaleykum waa Duna asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di bu baax a baax a baax a baax di leen bëggee di bëggee nag suñu soppe yi kenn du ñoom bàjjan parce que lu lu gars yi naan nawle dafa foor mais tamit soppe dafa fort barke Serigne Touba parce que tey yow foo yegg rek ñoom la kon tamit nag euh, dañuy tàmbali si ñoom billaahi di leen bëggee di leen ziar di leen wax ni nag kontaan nañ ci partage bi kontaan nañ ci zem bi kenn du ñoom Zimoh nag moom nuyoo na fépp nuyu na sëñ Afia nuyu na sëñ Mountakha nuyu na ñëpp kon nag man dama ñëw rek xuus. maa ngi noonu aja macha allah aja Zimoh coow li bari na wax ji bari na Zimoh Afia Zimoh Afia Zimoh Afia lu li. coow li xanaa buur bu yàlla moo xor rek du ko neex rek mu def ko si ñun buur bu yàllaa ñu def ñaari simo ñu ñëw saf ñëpp neex ñëpp loolu kas moo waral coow li ñaari seex nag yàlla nag moo leen moo ñaale coow coow ka wax parce que ñun doo ñu séenee ñuy dem doo ñu tuddul di ñu joxañ loolu moom par force la loolu moom yàlla moom moo ko def si ñun sàqamtumaa nag ñu ñëw te gem bi di ko yëngal. <laughs> ñu ngi koy yëngal ñu ngi koy yëngal. Ah? gem bi bu ñu neexee rek gars yi dañuy ñaan si njekk rek ñu lëlu mais du ñu lëluwul moom par force moom yet bi faaw mu dal leen. xam nga damay dégg ñu naan jumeaux yi ah dañuy dañuy jaay taar di jaay seen rafetaay patati patata na fi génn fi noo gisee wax jooju. wax jooju non dañoo juum de jumeaux yi ku leen xool doo gisul Cheikh Ibra su ñun mhm. barki Cheikhul Khadim amul looy gis su ñun mhm. ndax dañoo judd doon Baye faal doon ay góor yàlla doon Baye Fall tigi mhm. loolu de mi ngi su ñun lu ñu waaye di waxal moom loolu nga ñuy waxal ndax amuñu xas à part euh, TikTok bi ngeen di def est-ce liggéey parce que coow li bari na ci côté boobu. am nañ liggéey. lan ngeen di def. lu ñu sol ñoo ko ñaw. ah bon lu leer laa la wax. Mhm. lii ku ko xool nii da nga naan pera porte la. waaw man moom laa ko tegoon. Camara jëlal ma li suuf. jël ko aja jël ko. lii. lii nii ku ko naan pera porte la ñoo ko liggéey. Mhm. waaw waaw ñu ngi liggéey de. kon ñi toog naan ci mooy liggéey dem la uti liggéey loolu loolu dox ñu koy wax. non ñooñu comprendre xam nga nit ki euh, doo ko xamul day ko woowee eh, comprendre parce que ñoom xamuñu suñu vie carrément voilà loolu kese rek moo tax ndeysaan ñuy wax loolu les Imouafé dañuy liggéey ñun ñu ngi liggéey. yéen a ngi liggéey ñoom ñoo liggéeyoon. kon nu ko Simon waxee nit doo ko xamul ne ko ee eh rek mais tey ku dugg suñu vie dina xam ñun ba xam ay jàmbaar nañu war a duñ jàmbaar ñun heure bu ñu xëyee dañuy joxe dépense sama yaay ñoo koy yor. Ah fii mu nekk ñoo koy fay. yéenay taw fii ñu dëkk ñoo koy fay kon ñu ngi liggéey. ñun nekkuñu taaw ñu ngi si digg bi mais ñu ngi mel ni taaw ndax ñun la yet bi dal <laughs> waaw dëgg neexul. Ah, Jimo ah, gars yi ñu leen di gis ci TikTok bi Instagram ah Facebook macha allah seen relation ak yeneen ah, tiktokers yi. waaw wax dëgg yàlla sekk nañ jàmm comprendre liggéey dafa jekk saay boole ñu ñun ñëpp ñu daje comprendre du jeexee kenn ku nekk dem toog sa rukk voilà loolu kasa la billaahi man daa ma man damay lancer message mooy lan ñun ñëpp nañ xam ne benn nañ. comprendre euh, nañu yéenante jàmm moo gën quoi. voilà man sama gis-gis. gis-gis waaw. est-ce que d'accord nga sa jumeau li mu wax parce que gars yi des fois dañuy xaw a lekkante nga toog ñu ree nga dem ñu wax la lu la neex de. mais jumeau lu mu wax c'est normal foofu la mun a waxee te man it foofu laa mun a waxee ndax dafa am loo xam ne moom doo ko séenee rek du ñaawee fexeel mu rafet say bët est xam nga fu may waxee. Mhm. mooy ñun ñëpp benn nañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay na rafet. moo gën ndax ñun ñëpp ay ndaw nañ te ñoo bokk liggéey bi man influenceur yëpp laa sekkal jàmm man ak Jumo ñoom ñun rek nañ bëgg. Ah, loolu am na. barke Serigne Saliou Mbacke ñu wax leen ko ñu ñàkk leen ko wax mais ñoom influenceurs yi Jumo rek nañ bëgg. ah match bi yéen a doon arbitré. barke Serigne Saliou Mbacke influenceurs yi ñun rek nañ bëgg ñun nañuy tiitaroo ñun nañuy safoo. barke Serigne Bamba parce que lan moo tax ñooy seen ay Baay Faal. billaay wallaay taal kuñ si laal da ngay laal seex yi loolu moom par force la. billaahi la moo tax nag ñoom ñu xam suñu valeur ñoom ñu bëgg ñu ñu leen mhm. jërëjëf yéen influenceurs yi ñun ngeen di wër acca kon <laughs> influenceurs yi ju mooy ñuy wër ci yan projet ngeen nekk actuellement bàjjen projet yi bari na lool moo tax amuñu temps gis nga ñu ngi lay woo sànq ba léegi naan la bàjjen dañuy dem dañuy dem projet yi bari moo ko waral mais sant yàlla uh-huh. ndax ne doo xëyee làmb daj rek santal yàlla ndax am na ñuy xëy di làmb te duñu daj te nag bàjjen ma wax la benn wax barki Serigne Touba kaase wute mais ku xëy di nga guux lu mu ndaw ndaw di nga guux ñëpp nag mi ngi noonu kon projet yi ñu ngi si te incha allah rabbi si kanam tuuti dinañ xam ne Zimo Afia si projet nañ nekk incha allah rabbi. aca Zimo sama droite ak sama gauche <laughs> coow li bari na ah scooter bi ngeen yore mi ngi pëndal jamono jamono juñ ku ne naan Zimo yi seen scooter bi seen scooter bi xam naa nag dafa mel ni dañ maa dékkee ko jënd waaye dafa mel ni dañ koy nëbbu de. non jarul wax. ñuy jàpp man looloo ma jaaxal man policier yi man ñun lan la lan lañ leen def. lu tax ñu leen jàpp. te nag pourtant nag ndeysaan nag dañ bëgg. du ñu gisee eh, les iwo. police yi barke Serigne Saliou. police dañ leen di seetaan. barke parce que ndeysaan ku la jàpp comprendre nga yóbbu la seeraas jëndal la yàpp nga yow nga ndikk ba suur mu jox la caabi ne la demal kon bàjjandew ñoo ñëw bëgg nañ ñëw a bëgguñu. bëgg nañ police leen jàpp jënd leen yàpp. barke Serigne Saliou Mbacke. chef bi nga xam ne mi ngi maris Zimo dina jàllale turam léegi barki sëriñ Aziz daa sëy ak a baax. moo leen jàpp yóbbu leen kookoo ñu jàpp. daal ñu yóbbu séeraas jëndal ñu yàpp bu bari bàjje ñu lekk ba suur. mu pare sëriñ Ba mu pare na am nañ ñu bàyyi xel si homme de tenue yi barki sëriñ Saliou tëni bi rek moo ñu séparé ak ñoom mais ay nit yu baax nañ ku ci simmi sa tenue doo jëflanteeg moom di nga xam ni kii nit ku baax la. parce que nag ñu nekk seen liggéey da leen di comprendre ndax yàlla moo leen may li nga xam ne mayu ko kenn. yàlla moo leen may gëdd may leen kàddu may leen garaat comprendre nga nañ leen delloo jër jox leen seen njukkal xam ne tey ñoo yor suñu secret dëkk du ñu taxawee bay jàmbaaroog ñun barki Serigne Bamba ku ibbi xolam xam ne xolam mi ngi metti kon yow ñoom nga àndal barki Serigne Saliou Mbacke ah. bàjjan nag ñoo jar a àndal de Azimo <laughs> ah, ah, ah wax dëgg yàlla moom ñun ñoom wax dëgg yàlla si ñoom nañ féete bàjjan man maa ngi si policier yi man li may wax làqatuuma nëbatuuma man ci policiers yi laa. li nga la yàpp nga lekk ba suur moo tax nga far ci ñoom. non nekkul loolu. avant boobu nga far ci ñoom. man avant boobu man du ma tëddee nelaw ba yandoor ñoo yor suñu secret ñoo yor sunu lépp suñu sécurité bu jaar yoon bu dëggu ñoom ñoo ko yor. mais Mor est-ce que doo ma doo ñëw man ak man ak yow Mor man ak yow ñu nekk ay seex su ko defee fu ñu jàppee rek dañuy daal di bàyyiwaat dafa mel ne ay simoo kenn leen jàpp. kenn waru leen jàpp parce que lan moo tax seex yi ndeysaan ku leen gis rek da ngay reetaan da nga naan xool leen parce que complice bu nekk si man ak moom la dugalante bi génn bi joxante bi. te moom bi mu leen di jàpp xamul leen woon yéen a ngi leen doo ko gis. déedéet non non xam nañu sax comprendre mënuñu ah yéen parce que nag daf ñoo njëkk a jàpp. comprendre ñu ni bu bu benn déeru daw ñu sob génn ba ñu jàppee comprendre chef nañu yéen yéen yëgoo leen lu xew mën ko chef daloon nelaw ñu ngi soog a yow xamuñ sax lu xew <laughs> si la si la jëlee nag déeru bi ndeysaan nag daal di koy yóbbu biir gàdd comprendre nga léegi ndeysaan moom mu toog tuuti na yéen benn kilifa woo de yéen boo yéen bëri ngeen doole de man ko siif <laughs> yàlla <laughs> kilifa boobu la rus <laughs> voilà comme man man ko siif dimbali ñu nga jox ñu mbote bi sonnoon la mënuñu dem leen ba suba ñuy jooy parce que lii mooy suñu tànk barke Serigne mais mais mais mais mais moto bu garaaw bu bu riche lañ leen jënd laa moto bu doy waar ndax moto bi ku ñu ko jox barke Serigne Saliou Mbacke moo ñu lu ñu waay jox kooku jox ñu ko moo ñu ko gënal ci sutura la ko def ndax kooku da koo def ci sutura xam naa kan la bëggul coow li di bari ma noppi nekk nit koo xam ne nit ku baax la. ma ne ma wax. bul wax bàjjen def si code am na loo xam ne da nga siy def code ndax nawle dafa foor doo nekk ak say nawle nit ki seppi la am lu mu la defal jéem a la am sutura si sa biir réew nga denc ko mais kooku barki Seydina Muhammad ñun mënuñu koo fay. seexi seexi ku ne naan ku ne mi ngi naan mën a mën a mën a gi bari mais ku ne xam nga ki la man barki Serigne Saliou mm-hmm. Wally Seck la centre du peuple mm-hmm. ñun amuñu suñu moom sago. moom xam na ñun xam nañ mhm. ndax seede na ko si biir këram fu muy yeewoo fi nga xam ne mooy titre foncier mu moom ko di alalam mhm. dëkk ak njabootam mhm. dëkk faak jabaram ay nitam di ko fa fekk fa la taxaw sede ko macha allah waaw ah, ah, ah, way na leen foo déggoo son Wally Seck da ngay dégg mu way jumeaux yi mu nekk koo xam ne ah seen papa la mu bëgg leen lool macha allah seen relation ak Wally Seck ah jaaxle naa de bàjjan barke Serigne Touba bàjjan lan lañ defal yàlla ñun ah maa yàlla na bëgg rek ak seex yàlla ñun nit ñi bëgg ñu nii. Mhm. Ah, suñu papa Wally Ballago Seck bëgg ñu fu mu ñu seen nañu sama seex yi. comprendre way yombul. Mhm. billaahi way du deñ. way du deñ ba saaru duggee su YouTube bi fekk ko fa. Mhm. loolu rek yow moom moo gën ay alal yu dul jeex. barke Serigne Touba yàlla xam ne ni mun nañu koo fay barke Serigne Touba dañ koy bàyyi nag yàlla suñu borom mi nga xamante ni moo am fay moo mun fay yàlla nañ ko fayal. ba ki démb ñu gis leen ngente Wally Seck ba ngeen dem def lu rafet sañ sa ba jekk yendu ndeysaan da ngay xam ne eh, Wally Seck dafa daal di bëgg seex yi parce que xam nga mën ngaa dem xew ñu teg la fële waaye yéen da ngeen a ñëw daal di bokk. ndeysaan dañoo ñëw doo xoolee image yi dama ñëw rek mu téye sama loxo ma dee ko dee bu sori moom xam na man xam naa li mu ko dee. Mm-hmm. mu nekk nit koo xam ne nday no bàjjan day ma ko ne ko lépp la ñuy wax mu nekk nit koo xam ne dañoo sës si boppam rëq te rëquñu ko benn yoon ñun barke Seydina am xam ne ñun duñ sañoon Wally kese téye micro si àdduna nit nit doo ragal fi nga féete man dama bëgg nit koo xam ne doo féetee fenna gëmal fi nga féete ñun Wally Seck nañ am ñun simoo Afia ku ñu xam Wally nga ñu xamee mais ñun ak artistes yi sekk nañ jàmm joo xam ne mun nañ dugg ba seen biir yi nekk ñun Zimo Afia am na artiste boo xam ne barki Seydina Mouhamed waañam sax dama fay dugg rawal billaay wallaay taalaaxi ñun amuñu saf indi fenn ndax suñu xol dafa rafet ñun yéene wuñu kenn lu bon bàjjen ni nga gisee nii bàjjen kenn gënuñu bàjjan barki Seydina Mohamed merci moo gën a yomb si àdduna pour nit waxal la ko yombul jërëjëf moo gën a yomb pour nit waxal la ko yombul mais ñun afi ñun Zimo afiya fu ñu romb ñun ñu Zimo yi jërëjëf Zimo yi merci les lom des Zimo ñun kese les l'homme lii mais Zimo yi France bi foo jëlee ah Zimo nu ngay wax. gis nañ seen relation aussi euh, Samba Samba dafa nekk sunu frère. nekk nit ku baax bëgguñu fonk ñu ñu bokk sëñ Afiya Mbàkke mu suñ Fàllu gis nga Samba ñu nag moom dafa yàgg Samba man ak moom ñi ngi ñi ngi nekkoon fi nga xamante ne mooy may si Njaay may si Njaay da doon tëgg ji ma yenu nekkoon nga si may si Njaay nekkoon na dafa rëccoon bàyyi ma fi <laughs> lu tax lu tax lu tax mu dem yóbbaale wala damaa xam man daa ma néew maa jég saari gis si moo tent bopp bi yow takk ñaari jaaro di tëgg di tee tunga ne naan ko gun gun ma ne eh! ma jàpp man fu ma xamoon mooy gugun gun tëggkat yi xam nañ li may wax tungu ne gugun gun foofu laa jàppoon mag Samba mu yàgg Samba way ñu way bu rëy mu wër àdduna international zimo zimo zimo afiya loolu dafa garaaw may ma may ma ko may ma ko zimo zimo zimo zimo afiya cere rëj cere ki jëriñ <laughs> Zouba toj na fi barke sëñ Bamba toj macha allah nice na lool foo leen fekk jàmm ak salaam ah ay nit yu baax lañ ah, simple wàcce seen bopp waaye ta ñu gën ma neex mooy dañoo daal di bëgg seen yaay lool lool. saan bàjjen laal nga nag yaa ngi door a ñëw bàjjen gis nga yaay ku ko xamul moo koy foowee fexeel heure boo xëyee sa appel na koy gis sa yaay lu garaaw laa lay wax bàjjen ñun naanuñu sanguwuñu takkuñu lenn nañ gëm mooy sama yaay nañ ko teral barki mu Muhammad sama yaay musul yëkkati gàllaaj ne Zimoh am taq leen nit nit doo ko juree yaay xam lu mu doon sama yaay moo xam ñun lu ñu doon sama yaay musuñoo yor génn barki Seydina Muhammad te nit dabu ko ne ko am ngir ngir jëmm yi mu nekk nit koo xam ne ku ñu bëgg la ku ñu fonk la sama yaay dañoo rus doom ndayam rus ko yombul ñun dañoo am wërsëg boobu si moom fonk ko xam valeur am xam mooy kan te ñaanam barki Seydina Muhammad moo ñu yeggal fii ñu yegg tey ndaw ñi nañ wuti ñaanu waajur lu am solo la yaay buy dund profité loo man defal ñun sama yaay lu ñu man dañuy def lu ñu amee dërëm cent franc juróom lépp di moom lañ ko yóbbul barki naa Muhammad fee mu dëkk ñoo koy fay du jàqee ñun lay woo du ay ronkoñam tuuroo ñun la mm-hmm. barki Serigne Saliou mm-hmm. te heure bu tuuroo mbégte moo tax mu tuuru moo ñu bett ka xéwal war a ñu am loo xamante ne nii lu ko yéem la ñu indil ko ko ne ko yaa am jëlal moo tax ngeen di sonn barke Serigne Sall moo tax ñuy sonn macha allah ma dégg ma ma loxo nañu teg loxo ndax moom ma dégg ñu ne jàmbaar la kat la woon bàjjan yaay bàjjan dafa yéeme mhm. barke Serigne Sall Mbacke balaa ngay xam ne yaay dafa yéeme mu sori la quelque temps barke Serigne Touba Mbacke ngay xam ne yaay protège la si doom sam benn xarit yàlla da koo defaral lu nekk mhm. teraanga bu nekk mënu ma mais sama yaay fekkeewul sama njariñ billaay wala xaalis bi ma dara billaay wala taala ma xam ne kooku noonu man xam naa man fan lay waxee parce que lan moo dax mm-hmm. yàlla teral na ko yor na lu dul jeex gisul yaay yaayu yaayu yaay yi rek lay teral barke Serigne Touba Mbacke nga xam ne yaay protège la si doom barke Serigne Touba man de man damay ñaan yàlla yàlla nañu yàlla bàyyi sama yaay fi yàlla bàyyi ba mu fekkee suñu barke Serigne Touba billaay wala moo tax ñun dañuy profité parce que kenn xamul yàlla kese moo xam cent franc ñaar dërëm lu ñu yor dañuy daw yóbbul ko. barke Serigne Touba. Mhm. Euh, Badiane dama lay wax lenn sama yaay daf ñuy ñaanal bay jooy barke Serigne Saliou Mbacke. Mhm. sama yaay daf ñuy woo téléphone ma xam ne sama yàlla yoruñu dërëm duñ ko jël parce que la moo tax bëgguma mu dégg suñu gàntu. ay gor ngeen bëgguma mu dégg ko. barke Seexul Xadim danaa ma lan la dama leen woo doo leen ma jël. ma na ko yaay defal naa ma génn fii woo la euh, génn boobu noonu maanaam man damay dem man pour man comme rek lijjanti pour woo ko waat ne ko yaay xoolal sa wéef. am jom. barki Serigne Touba Mbacke moo tax gars yi dama leen di message. profitoo leen seen maire maire. lu am solo la. barke Serigne. ndeysaan bëgguma continuer soo laalee ci seen yaay rek da nga leen di laal parce que seen yaay mooy seen lépp yàlla yàlla guddal fanam ngeen dund ba koy yóbbu muy ziyaara gi Seydina Muhammad parce que tamit yàlla rek la ñuy ñaan te yàlla am na ko mun na ko su ko defee ñu daal di ñëw euh, ci yëngu-yëngu réew mi lomotif yi tamit ay paaka ah ay ay ay mala tamit. waaw bàyyi na yow mbott yow man tee maa nekk mbott. <laughs> laa bëgg doon. Zimo <laughs> Badiane. Ah. gis nga sunu réew mi ñu nekk di Sénégal. Mhm. yàlla mun naa ni ëllëg yoon man xiyaam du amul confiance si Séné Sénégal réew mii du am feneen confiance ndax dafa xam nit ñu baax ñu mu fi teg di ay kilifa di ñu màgg kon yaakaar naa ne du ñu namee lu ñaaw ñu ko créer bu koy génne ñun dofuñu. vidéo yi ñu gis sénégalais bokk si. ah vidéo yi du vidéo Sénégal. non non. yi di ko kaa ñu la Sénégal yi ñu gis. parce que ay mbott kay xanaa sénégalais sax kaa jël ay mbott. vidéo yi ñu gis Sénégal du jëf lii doomu Sénégal. doomu réew mi du jëf lu ñaaw li vidéo yi man rafetulu ma ko yi ñaaw la ndax yaakaar na Sénégal la du Sénégal na leer si nopp ñëpp ndax ku nekk mi ngi naan vidéo yi le motif le motif le motif nañ bàyyi heure bu événement amee ñuy profité di génnee loo xam ni ñaaw la mm-hmm. ndax dañoo ndax dañoo am ñoo xam ne ay xale nañ te jamono ji ñëpp a yor téléphone ñun ay influenceur nañ duñu lancé wul message kon ñun lu ñuy woote gëmuñu ko mm-hmm. moo tax ma jàllale message bi nañ xool lu rafet di ko génne nu xool lu rafet di ko def ñi nga xamante ni tey du ñu génnee vidéo yi vidéo yi naaw balaa ñu koy génne nañ xool vidéo yi bu baax door koy partager ndax am na ñoo xam ne yàlla da leen a wërsëgal loolu du ñu génnee vidéo balaa deux minutes mu laal un million de vues ñun si ñooñu nañ bokk. ñu xoolaat li nañ xoolaat lu ñuy def moo gën a naaj. xam ne tamit ñu ngi Sénégal di def ay vidéo di def ay yaramu neen di def naka su dul noonu bi ñu vidéo seen bopp est-ce que tamit xalaatuñu ba muy rëcc. man damaa yaakaar nit doo xasee ba bon bon nga ñooñu ay nit yu nañ ndax nit waroo waroo jëf looy jëf di filmer sa bopp ndax xam nga ni doo ko filmer loo koy doy lu dul mu génn kon lan moo tax nga koy def nit danga ngay baax xam li nga doon xam ni sa ndey dafa liggéey bu mu lay jur jurul la pour nga def yaramu neen ba faaw heure bi nga waree def yaramu neen jël na sërëm nëbb la ba nga màgg ba toll nii kon doo demee ba màgg war nga xam sa bopp fonk say cër man ñooñu munu ma leen respecté munu ma leen jox cër man ñooñu noonu. d'accord yow nga ne da a nekk mbott. ah bi ka dafa jeg saa rek <laughs> ba mu duggee ba léegi génnaatul mais téye nañ benn tànk bi. bu mu génn mais mbott bi garaaw na. mais mbott bi nee na de parce que mbott dafay soxla tàngaay. d'accord fu mu dugg noonu xam nga dafa xaw a tàng. est-ce que mbott bi xam na fi mu xam na fu mu dugg <laughs> mbott bi fu mu na ko de moo tax génnul de. mais mais mais mais ah, moom mooy bandi bi. kii mooy bandi bi yow dégg nga kii nu muy waxee. nga ya non nga yaakaar ne mbott bi est ce que est ce que est ce que yàggul dugg foofu wala mu miis ko parce que mbott bi dafa gis rek tëb dafa gis rek tëb. ah ba pare mbott bi man nag man dama jàpp ne sax man est ce que nekkul rawaan est ce que nekkul euh, genre kii quoi parce que dégg naa nag dégg naa nag gars yi comprendre bu ñu leen di faj comprendre genre yooyu noonu dañuy nekk ay genre rawaan comprendre moo tax mu xàmmee foofu. <laughs> xàmmee foofu non non non xaaral ma ñëw paaka bi nag. paaka bi ah man de paaka bi damaa foog ne gàllaaj la dañuy faju ndax am na sëriñ yoo xam ne ni ñuy fajee. mais mais lu musul am moom ne ay paaka. ah man moo ma yëm moo tax ma ne da doon faju xam nga nit mun na feebar fu ne. naa da doon faju rek xale yi nga xam ne ah na ma yàlla jéggal léegi ah dañuy def loo xam ne sax seen parents yi duñ ko yëg parce que dañuy tàggoo kër Fatou dem kër Samba jël ay appartement def naka su dul noonu ñenn ci parents yi xamuñu seen doom yi lu ñuy def. non parce que nag loolu noonu nag lépp rek comprendre ñàkk euh, contrôler sa doom la parce que sa doom tàggu la fii comme nag mais nag jigéen na kenn mënu koo fiire bàjjan billaax mën nañ tàggoo jàngi jàdd euh, jàdd kër les moom <laughs> <laughs> comprendre nga moo tax nag wax dëgg yàlla loolu noonu comprendre dootu soree sax mënul nekk parce que ndeysaan parents yi talatuñu dara comprendre parce que ndeysaan ñu ngi daw dépense comprendre dëkk bi metti na comprendre nga ñu ngi lijjante ñoom lan lañ warul dund billaahi moo tax ndeysaan taluñu dara ñoom daal ñoom dañuy jekk rek gis seen doom bi <laughs> ñu naan kii diw la mu naa ko far nga jaaroon <laughs> nan nga def ba génn kër gi <laughs> loolu kaka damay tëj daal tëjee ci doomu faramaaren bi Waly Seck coow li daal dina bëri loolu jamono ji ñu toll nii ah ci moom nday ñaay bànneyaa ah, mi nga xamante ni dafa daal di jóge fee ca subateel def na ab sorti nag si gaan ngeen sorti bi Waly Seck daf kaa daal di oto te yàgg na ko teral du na guleet te yéen ngeen féete ci Waly Seck lan ngeen di wax waaw lu ñuy wax mooy nit mooy xool toll tollam xool li mu yëg ba wax Ndeye Ndiaye li mu yëg ba taxaw ne moom dafa mi ngi fii loolu moom moo ko xam yëg-yëgam la mais dama la bëgg xamal ni kër Waly barki Seydina Mouhamed géej la ku ne xaj ka fa man gëw ma nit di siis nit fi nga xamante ni géej la fu waaye toll tooy xepp kon yaakaar naa ni ku ñëw war nga ko bàyyi mu tooy man foofu loolu laa fay wax waaw oto bi mu ko may oto bu mu ko may Waly yàgg naa def lu baax nekkul c'est la première fois la yëkkati oto may ko nit Wally si avion la jëm maa la wax lii man si moom maay wax ak yow de. xam nga yéen na leen ay xaalis des fois ah jumeaux million yeeg sept millions yi ah, moom comprendre bu ñuy jox moom ay njëgu kafe la ñuy jox. Hmm. comme na kaasu kafe fukki dërëm rek. waaw xam nañ ay Baay Faal lañ. Ah. voilà loolu kafe rek la ñuy jox bàjjan nag bàyyi loolu nag bàjjan. nañ nañ yaay bana yaa mi ñëw mi ah. nañ yaay bana yaa mi ñëw day jaay encore day dafa ñëw. gisoo day jaay. waaw ne tambax nga ne tambax. yaa ma wax loolu de man daa man seen naa ko muy fecc rek naan ki jëkki jëkki jëkki <laughs> loolu rek laa gis mais Ndeye Ndiaye tamit bii si ma boobu mi ngi toj de. mais sa mais sa waay sa de. ah na ñu ne war si waaye ndax su doonee mu doon tey Sidi Diop moo ko def. non loolu noonu déedéet non non parce que kenn ku nekk yow da ngay baati waali comprendre nga jàpp ñëw na baati waal keneen ak keneen na. non ñibbisi bi mu ñibbisi. ne sama papa ji loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi. waaw déedéet maanaam ñibbisi na de. maanaam problème boobu noonu seeni problème la kenn xamul lan moo ko waral bàjjan. Mm. comprendre ñun nag ñun lu ñu xam maanaam muy dem nañ foog. seen nañ ko si kaw seen bi mu naan gidee gi jékki jër. Eh, loolu kese man moom ci neex gidee gi jékki waaw looloo neex ñëpp looloo neex ñëpp. atia moo ngi noonu je mooy la seet si a pare. nekk samay frère nekk ñu baax nekk ay jàmbaar ay liggéeykat macha allah su ko defee ma bàyyi leen ngeen tàggatoo. waa mais bàjjan nag wax dëgg yàlla nag geste bi nga def barke Serigne Touba dañ la ciy sant di la gërëm parce que gars yi bari nañ nga seppi ñëpp daal di woo comprendre dañuy kontaan loo def def nga nag geste bu mais nag c'est normal parce que ñun ak yow ñoo far billaax dañuy déggante téléphone ah comprendre yaa ma gën a xam billaax yow nga nekk nag nit ku oyof nit ku baax barke Serigne Touba dañuy jaar foofu nag di bëgg nag suñu sopp yëpp billaax parce que ndeysaan nu ñu mel rek ñoom la kan la accidence sëy sëy kaan dem léegi mi ngi nii si poste dem léegi mu teral la barke Serigne Touba nit ku baax voilà nag ñi ngi bëgg nag ñëpp bàjjan billaahi di ziar ñëpp di wax na gaay nag na nga xaar nag benn surprise lu bees tàqale dinañ ko génn léegi léegi léegi léegi léegi incha allah te du génnee nag dina neex ñëpp Serigne Touba waaw bàjjan man damay gërëm samay ñaari waajur di leen sant ndax nu ñu mel tey ñoom la fonk nañ ñu xam nañ ñu xam ñooy ñan di leen sant yàlla bàyyi leen fi ñu am gudd fan wér ba ñu fekkee ñu lu leen lu ñun lu ñu namm si ñoom du neexee yàlla sunu borom du ma jugee foofu Basiru Ka mu baax mi di sunu waay di sunu xarit nee naa ko mooy borom terrain su ñun borom xaalis bu bari bi su ñun ku baax taalibe Serigne Saliou bi màggal gi jub talul dara ma nga sa àll ba di wëri ay nag caay mag la Basiru Ka sol di wëri ay nag pour yóbbu Touba jàmbaaru maam Serigne Saliou bi jàmbaaru Cheikh Béthio Thioune bi nee naa la lu mu namoon ci Serigne Saliou ak lu mu namoon ci Cheikh Béthio Thioune yëpp mi ngi koy jëf si ki nga xamante ni moo toog di Serigne Saliou Thioune Bassirou Ka yaa baax am na solo lool am na solo moo ngi nii baax kese am solo li ma seedeel yëpp ci ñoom la nekk parce que dama naan chaque jour soo amee yar am ay teggin kii laa ko wax xaw kii laa ko wax démb voilà ngeen am yar lool am ay teggin yëgoo leen seen bopp su leen ngeen fuy ndax doomu faramaaren bi nag fu taxaw di tiitaroo leen di sagoo di leen way mais da ngeen simple ah suñu match ba ngeen arbitre ko sama daanuy metti <laughs> man ak yéen dañoo yàgg kon ah ñu ngi koy xaar bu baax a baax mm-hmm. incha allah télé Sénégal moom lu ngeen ne ah, ci la dina di ngeen ci ndax ni ko xaw ma nuñ koy waxee <laughs> lu ngeen ne dinañ ci ne moo ngi noonu olof bee xaw a leer amor ah, moo ngi noonu di leen jaajëfal bu baax yàlla may leen gudd fan waaye duma ma bàyyi benn yoon te nuyu ma sama frère sama xarit borom téléphone yu baax yi Baye Modou Kane ñàkk ki ñaan loola bëgg ma macha allah Baye Modou wuyul Baye Modou Kane nag zimo yi war nañ faa ñëw nga toj ñu si ay Baye Modou xala changal ñu lii nag sama frère mi ngi noonu instant yi iPhone moo fi man ndax nee naa ko fi ngay fi ngay jëndee kenn du fa jëndee waaye fi ngay rootee macha allah ragal féete comme ni nga koy waxee man ragaluma ma féete ak yow ndax da nga baax lool ci ay conseil ci teraanga baax ñàkk ki ñaan sëñ Saali wa ñu boole waaye rëccuuma ko kon di leen jox rendez-vous moor lépp yow la merci beaucoup jaajëf